d'accord léegi mu amaat yeneen nag yoo xamante ni la ñuy wax les les médicaments à usage externe. Hmm. nga xam ne tey booy faj lu nekk ci bitti. Hmm. ay góom wala yu demee noonu. comme ndoxum siti wala ndoxu siti wala yenn. am na yoo xam moom ngay utiliser te loo def décoction da def macération ak yu demee noonu. Hmm. donc loolu mooy xam naa ci deuxième partie bi ci la ñuy ñëw. muy exemple tey nga jël li ñuy wax ay comme euh, cataplasme. waaw voilà. cataplasme moom nu koy waxee ci olof mooy bande loo xam ne da nga koy bande. Ah, d'accord d'accord d'accord. maanaam tey da nga jël xobi siddéem mhm. wala xobu yaa xam garab bu ñu la jox mhm. les tuuti tuuti da taf sa kaw yaram jeex na léegi nag garab boo xam ne danga nga koy jël taf ci kaw garab ci kaw góom bi wala dara mhm. bànd ko loolu ñuy wax cataplasme ah, léegi amaat yeneen xeet yoo xamante ni eh, ay ay bain la bain kon nag ay bain bain yu ñuy sangoo yooyu yooyu yooyu tamit en général bin lañ koy tuddee quoi mhm. mais mën na nekk décoction comme mën na nekk macération mhm. mais après soit da nga koy sangoo mhm. wala nga laver une partie de du corps góom la wala ndox la ko nga def waaw nga def ko ci wala ay tànk yu metti nga dugal ci tànk yi exemple wala bu dee bët nga nga xool ci nii comprendre nga wala bu dee nopp nga def ko ci nii toqal ko ci yooyu tamit euh, comme bu dee yaram yi xasan sangoo yu xasan nga euh, sangoo ko ci nii yooyu la ñuy wax ay ay bien am na yeneen li ñuy wax li gargarisme mooy loo xam ne dañ koy gàllaxndikoo comme ay bain de exemple loo xam tey boole bu xajam daal comme nit bi waaye sot ne boole gi di xajame noonu waaw utiliser waaw di galax waaw waaw ak di galax sa gémmiñ ak yu demee noonu yooyu ay ay kii la ay guux ndox mi mais doo ko wan doo ko wan waaw voilà mhm. mel ni ku ci bëgg a nettoyer sa nettoyer sa gémmiñ yàbbiwaat ko waaw wala nga wala kii ko ci gémmiñ gi néew voilà ci bu dee ci bëñ yu metteeg yu demee noonu. Mm. log ko guux kalaxndi ko. guux ko quelque temps quelque ko. donc yooyu tamit ci façon médicament yi la bokk. Mm.